Seydi Badji doonoon élève ci lycée Malick si ba nekk ca Thiès moom mi nag moo génn àddina ajuma ji gannaaw ba mu amalee séance gymnastique moom mi lee doonoon élève bu ñu ràññee woon ci boobule tàggat yaram Seydi Badji tàmmoon nag di réviser moom kase ci salle sport ba nekk ci établissement ba pour ñu sukkandiku ci suñu ay témoins accident bi nag mi ngi am gannaaw ba mu bëggee tenter réaliser benn salto arrière loolee moo indi bi la ba mu jural ko daanu bu doy waar ñu daal di leen alerter ci loolu sapeur pompier yi nag daal ñëw jël ko yóbbu ko ci service urgence hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène ba ne ca Thiès foofee la leen médecin bi daal di leen di yëgal génnub àddina xale bi Sidi Badji nag daal di nekkoon élève ci classe première moom mi lee doonoon tamit doomi proviseur ba mi nga xamante ni professeur éducation fisique ak sportive maanaam EPS ñu leen yëgal rek ne Sidi Badji laata muy génn àddina qualifié wu na ci ab concours gymnastique foofulee ci commune Thiès ci cadre tournoi yi nga xamante ni école yi ña ngi koy amal ñu daal di koy jàppoon ci samedi ji foofee ca lycée El Hadj si ba nekk ca Thiès.